njoon balaa ñuy dugg ci ñëw ci ñoom ñànku euh, ak team bi mu àndal mhm. dañuy dañuy dañuy encourager les lions du Sénégal dañ leen di encourager bu baax a baax a baax euh, man damaa gëm ñu ànd ak ñoom àndu nawle dëgg la parce que boo xoolee Coupe d'Afrique bi nañu débuté woon Sénégal yu bëri di jàmbat ñi di découragé ma ne leen nañu ànd ak ñoom àndu nawle mhm. bi ma ko waxee ñi comprendre ànd nañoo ak ñoom ànd nawle ba ñu indi coupe d'Afrique bi. dëgg la ki nga xam ne 1960 ba léegi say maam jéem nañu tële. say papa jéem tële. say mag jéem tële say jarbaat ku ne jéem tële. ñoom ñu mhm. ñëw doon ay xale yu ndaw. dëgg la bokk ci siècle bi nga xam ne mooy presque siècle yi mujj ci àdduna. Mhm. ñu góorgóorlu ba indil ñu coupe d'Afrique ci Sénégal ñu doon wër ci ay àdduna jooy yan daan jooy bërëmu yan daan bërëmu. dëgg ñoom ñëpp ñu daal ñuy fombal rangoñ boobu ki la defal loolu. Mhm. ëllëg lu la mën a defit da ko war a muñ à part sama bopp laa xam ndax du ma xool yépp mhm. équipe nationale bu ñu doon fubalaat fubal bii di ñëw yàlla ter yàlla ter bu ñu leen dóoree quarante zéro mhm. quarante ci zéro dama leen di gën a bëgg damay gën a ànd ak ñoom àndu nawle ci ay xale lañu ay mhm. jàmbaar lañu def nañu seen wareef dëgg nañu nag la waxoon dañu neewoon naa leen tay di ngeen gis football bu ngeen mësta gis xali football ko sans sadio mané mhm. waye nak sadio mané mi won ci bir dem nak lolou lañu wone football nañu waye nak ñeleen gagné dañu don ay ndanan mhm. ah dañu don ay ndanan dañu football dañu ñëw pour ci ndam football comme nan nga nañu leen dolel nañu leen darajal nañu leen jappalé taw wañi wax ji mhm. Aliou Cissé gënu leen ko bëgg ndam defal na leen loo xam ne Claude Leroy defulu leen ko. dëgg la defal na leen loo xamante ni si nu mu tuddati euh, entraîneur tubaab bi fi nekkoon. Cas euh, Henri Kasper Zak defu ko. Euh, kii di Aliou Cissé li mu def gis Stéphane mosu koo def. li mu def ci sport ci football sénégalais football football football senegal benn entraîneur bu ñu jëlee bitim réew mosu koo def ba ci entraîneur yu ñu jël ñu ne Sénégal nit da ànd ak mu àndu nawle. Mm-hmm. dal leen ngeen bàyyi seen xaste yi ngeen bàyyi seen wàññante yi bàññi di bàyyi di ñàkkal fayda kii leen leen defal mënutu leen ko fay dafa am benn mag bu ma daan wax nit boo xasee ba mar naan mu jël kaasu ndox fajal la sa mar nit kookee ci àdduna boo dee gor waratu laa def loo naqari mm-hmm. man de équipe nationale dañ leen dóor 100 ci 0 yàlla tere waaye te leen man de tey laa leen gën a bëgg tey laa leen gën a fonk moo tax ma xëy seen nii nañu dooleen suñu gaynde te wàññi wax ji nañu wàññi wax ji ñaanal leen dooleen leen kàttanal leen fa ñu dem ay équipe yu mag lañ fa dajal ay réew yu mag lañ fa dajal ay équipe yu mag yoo xam ne jox nañ leen lépp mais équipe nationale boobu peut-être am na condition yoo xam ne sax matul ci ñoom waaye ñu doo boole seen jom seen fulaak seen fayda mhm. ak seen ngor di wane di yëkkati drapeau Sénégal fu mu nekk li gën a am solo mooy turu turu Sénégal dem na mhm. ma nga ci coupe du monde ba ñu ngi koy jaayante en xaddi nit doo ànd ak moom suñu borom tekk nattu rek nga bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg xaddi ñoom ñi a bëgg a bëgg ndam ñoo ñu gën a bëgg ndam ah donc ngi noonu nañ leen soutenir bu baax a baax nañu dolli ñaan yi ñun da ñun ay ndaw lañu ay jaayil lañu ñun suñuy kiiraay yàlla muriwu ko yéen yi nga xam ne yàlla muri na seen i kiiraay yéen ñi nga xam ne ay boromi daraja ngeen ci réew mi yàlla yàkkamtiwul lu dul ngeen ni ko ngeen ni ko allahuma loolu la yàkkamti parce que defal ngeen yàlla lu nekk mm. liggéeyal ngeen yàlla ba seen ruux di connecté ak yàlla loolu waxin la déggin la laat yéen ñooñee bis bu yàlla sàkk heure bu ngeen xëyee yàlla da leen di tiim malaaka yi di leen tiim naan ñaan ma ma may la ma yéen du ngeen ñaan leen lu dul doon doon doomi aadama yu nangul yàlla ba génn àdduna loolu ngeen di ñaanal yàlla donc muy musulman muy chrétien kenn ku ne am na foo toll ci yàlla nañ duggaat ci jumaa yi duggaat ci jàkk yi ne lañ football dafa xaraam intéressé football ba intéressé wu ñu duggaat leen ci jumaa yi duggaat ci jàkk yi église yi daayira yi fépp foo xam ne nit mën na fa taxaw ne yàlla may ma ñaan leen ko yàllaay maye nañ ko ñaanandoo may ñu. dëgg la ñu àndandoo dooleel suñu euh, ndaw yi nekk foofu ca Qatar ba ñu indi ndam li fii Sénégal mën naa nekk. dëgg la waay c'est ça c'est que ñun amuñu droit sax découragé wu parce que am na ay royukaay. ñun bu ñu xoolee ci Kéba Seck war noo découragé <laughs> Kéba Seck dem na ba doon paat Kéba Seck dem na boo doon mag doo ko doon jeune talent. général ñu eh. amoon waaw loolu dama koy wax. kooku def déglu ma rek. alima ñun ñëpp si saa waaw déglu kooku def émission à la bombe. kañ la commencé def émission à bombe. waaw ba léegi mi ngi def émission. kat kooku def émission à bombe. waaw. ma wër kat. waaw te découragé wul comprendre nga. ak Kéba Seck ngay man lu ma wax ba mën naa kaa défendre sama bopp. nga ne le luy xew. le 16 nag. 16 nag boo ko boolee 6 plus 1 da jox 7. juróom-ñaar waaw. ndax chiffre 7 boobu nag. chiffre bu rëy la. dem na dem na feneen ah man nag des fois damay dox ci ay affaire man damay dox ci génn foofu ay ay fi dox ma nga ca leneen moom six plus un égale sept donc le 16 insha allah ci ban weer décembre mu ñëwaat nekkaat douze mhm. douzième mois waaw ah, douzième mois mhm. ñu wuyu fa fas yéene wutal nag grand théâtre mhm. salle bi nga xam ni bokk na ci salle yi gën a mag ñu ci artistes yu bëri ndaanaan yu bëri fa la ñuy nattee seen bopp dëgg la donc euh, ñànku fas yéene ànd ak tiimam bii nga xam ni bégal nañ ñu ci guddi ak ci bëccëg. Mhm. fàttaloo nañ suñuy jafe-jafe. ki la defal nag lu la kenn war woon defal bu wootee nga war ko defal lu ko kenn defalut. dëgg la ñànku daal moo ànd ak ay frères am wutali grand théâtre le 16 décembre incha allah. Mhm. incha allah ñànku waaw. waa mu ngi noonu euh, dañuy préparer dem grand théâtre Cheikh Grand mille 2020 lañ ko lañ ko jàppoon. Covid bi yàq ko. ñu jàppaat vingt an deuxième vague bi ñëw. xam nga eh, léegi nag ñu bëggoon a bàyyi eh, ba corona bi jeex. ñu xool corona bi di jeex ñu koy xool muy dem ñu koy xool muy dem ba dellu siin gëm jigéen xoomat ba dem ba jeexal tàkk ba mu leer ni dem na. ñu soor jàppaat date. muy le le le 16 décembre incha allah. Mhm. Eh, ñuy woo Sénégal yépp nag. pour ñu ñëw ñu bëgg leen en mm-hmm. ndax boobu ba léegi nii ñu ngi ñu ngi kontaan ñu ngi bëgg ci vidéo yi. Mm-hmm. ndax ñun façon nit bu nekk moo ñuy woo. ay kilifa yoo xam ne dañ ñuy woo ci bul tudd suñ tur. Mm-hmm. waaye na nga xam ni suñu dee werd eh, dañuy teg suñu téléphone jàkkaarlook yéen. donc loolu yàlla xam na ko liñ ci am bari na. li ñuy am ci ay cas ay nit yoo xam ni ñu ngi ñu ngi may seetaan. keroog damaa dem daje benn femme boo xam ne day fëgg sama oto may daw muy fëgg. bu góor bu jigéen. benn femme femme femme. femme la femme. femme. bu góor. waaye ndax bu góor bu jigéen. femme. bi ñu fëgg oto bi ma taxaw. mu ne ma taxaw ma taxaw mu ne ma. <laughs> Euh, dafa am lu tax ñu may fëgg oto bi nii pour dab la. dama laa séenee fële maa ngi la toog ma ne ko waaw. mu ne dama benn xale bu feebar suñ kër. <clears throat> mais bi mu feebaree dañoo doon ba amatuñ ci moom yaakaar femme bi xam na mu may dégg mu ne ma waaye. Euh, lenn rek la mënoon mooy que day day bëgg ñu koy jox ñànku yi mu koy seetaan ñu koy nax di ko jox muy lekk di ko forcer garab yi su bañee naan garab yi ñu ne ko dañ lay tegal ñànku ba noonu la def ba ni mu mujjee wéree te li ma ko am ci ay cas kenn xamul nu mu nu mu toll mujj nga ko seeti yàlla xam ne non non seeti ma ko nga ñi maam ñi ñi feebar tam te ñu wér te tax moom ma wéral leen dafa bari tàng waaye nii laa mën occasion yi su amee. moom bu seet nag ñaar nag non seex xamal na ma. moom sérieux quoi. waaw non seex mi c'est-à-dire kii kii kii ñun ak moom ñoo yem. Ah. non waaw non léegi nag. léegi nag waaw léegi nag. deseere ko deseere ko. deseere ko dafa seere. Ah, deseere ko tu yolomal ko. auzu billahi mina seytaani rajim eh, eh. ah du ngeen ma déglu. Ah, voilà dañuy jëm le 16 décembre nag. loolu mooy code bi. grand théâtre nag ñëpp xam nañ ni. léegi xam nañ la fay xew grand théâtre xam nañ la fay la fay xew. ñàkk waaw te seex nii la ñuy continuer ba grand théâtre. grand théâtre wat nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko. non code bi ñu xoolal depuis mat na léegi mu def euh, ëpp na un mois. ëpp na deux mois. ndax dañoo jël un mois yoo xam ni. Euh. géej lañ doon répété guddi gi. ndeysaan. Cheikh Béthio si da dooguma la waaw <laughs> dafa am code bu doy waar boo def te Cheikh Béthio boobu dafa amul codam Cheikh Béthio Thioune yan yàlla yokk comme ni nga waxee nii nga ne léegi sa veut dire que groupe bi bu ma nee auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñëpp dañu war ñu concentré wu loolu code la mais Cheikh Béthio bu daan wax ak dégloo ak dégloo gaa yi kon ne mu ne ah mbaat dañoo rax ñëpp na teg ah. bu ne ah bañ ñu rax ñi da ngay ah, waaw ah mbaat mbaat dañoo rax ah gaa ah, yi na teg kenn dootu noyyi loolu code la boo xam ni day baax ci ci jotaay